rabbil alamin bes bi Senegal yep ko don xaar rawatina ñun patriote yi nga xamne suñu leader lenyut toñon tooñoon ñu ba fi toñ ya japp aussi suñu candidat tej ko ci kasso be suñu frère ak suñu sœur ci lidul deug du yoon kon tay kep kuy sénégalais war nga wax alhamdullilah rabbil alamin ta xamne yalla rek ay deug yalla rek a mën li ma neex ci bi moy président Ousmane Sonko dafa bëgg alcorane Macky Sall defal ko lu reuy projet bi mu porté ci weeru koor inshallah allahu rabbi lañ koy installer kon euh, mbirum Ousmane Sonko ay jangat la histoire bi danañ ko bind suñu ay sët ak ay suñu dinañ ko jang on avait besoin d'écrire notre histoire et on l'a écrit avec notre leader le président Ousmane Sonko limay yek ci sama xol moy mbekté mooy sant moo ngi sant yàlla bu baax ci bés bi te jàpp naa ni tey bés bu bees indépendance bu bees Sénégal dafa moomaat boppam ñuy gërëm nag bépp sénégalais képp kuy sénégalais koo xam ni jàppale nañu ci li nga xam ne mooy xeex bi nga xam ne dañ ko doon mëne contre l'injustice. diggante président Ousmane Sonko ak diaspora bi kenn ku ne di xëcc ni maa gën a bëgg Sénégal ne maa gën a bëgg diaspora bi ne maa gën a bëgg. le président Ousmane Sonko Ousmane Sonko wu Sénégal Ousmane Sonko Afrique Ousmane Sonko àddina yàlla moo ko feeñal ci suñu génération man ku ma xam ne dama bëgg Ousmane Sonko dama ko naw ci ay jikko naw ko ci ay qualité yu ñu gis si moom si njiit suñu génération soxla woon na njiit bu mel ni Ousmane Sonko yàlla indil ñu ko mu xeex li mu xeex population bi ànd ci ak mom ñu wara bind nak page yu yees ci Afrique ak Sénégal ñu ngi ñaan yalla suñu leader le président Diomaye fallou le 24 ndax ñu ubbi page bu bess ci Sénégal te gëm nañ ni yalla dinañ ko defar ci barko wéru koor. nan ngay wax patriote particulièrement jeunesse bi ñu xam ne tam euh, liy jàppale président Ousmane Sonko vote la ñu jëlee seen carte électeur yi préparé. lolu defe na patriote yépp def nañ ko farata waaye nak lu fas daw daw dang koy làbbali maa inviter tous les patriotes képp koo xam ne sénégalais nga nga am cofeel ci Ousmane Sonko nga am cofeel si si président Diomaye nga jëli sa carte électeur le 24 ñu bind carte avec suñuy carte électeur ñu bind page bu yees histoire du Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp li ñuy wax metti woon na torop waaye en tant que jigéen xam naa ni li gën a neex ci àddina mooy doom te doom sax soo koy am da ngay matu balaa nga koo am kon fii Sénégal jaar man dama jàpp ni fii la Sénégal waroon jaar pour baax te gëm naa ni incha allahu rabbi fii la Sénégal di jóge baax ba ilaa yow mi diini te sénégalais yi ñooy nar a bind seen histoire te ñoom ñooy nar a changer seen dëkk ilaa yow mi diini sur l' impulsion du président Diomaye et du président Ousmane Sonko jërëjëf. merci beaucoup kontaan nañ ci yow bi ko noonu kàddu